mbëggeel am na facette yu bari mhm. gis nit nii rek bëgg ko d'accord mbëggeel la mais ki nga war a mën taxaw dëggantaan ne kii je t'aime loolu pour man vraiment il faut ngeen am fa ngeen am fa ngeen am ay ay jaar-jaar mhm. et force de dire par exemple dafa graaw lu ñu war a wax duñ ko wax nuñ ko war a waxee du duñ ko wax mhm. dama tombé nii ci benn scène quoi benn xale bu jigéen juste ñuy wane à la télé je veux pas faire de pub ah. euh, euh, ñuy publicité préservatif quoi euh, xalé bu jigen bi elle a plus de 19 ans. Mhm. mais xamul li ñuy publicité lan la. mais da ngay gis da ngay tek film yi yu bëri boy toog aisément. def mhm. di xol seetaan. Mhm. man du coup moo tax euh, war nañ xolat tamit ci kër yi quoi yar yi. tay on a des invités ay invités yu doy waar ay ils font des choses extraordinaires pour le Sénégal pour le devenir du Sénégal mais pour leur devenir également mais nous allons débattre du sujet pour aussi parce que c'est comme ça que ça se passe le plus souvent qui parle aux jeunes nous allons parler de sexe ils sont des artistes ils sont souvent dans des boîtes ils animent souvent et il y a beaucoup de tentations dans ce qu'ils font donc nous allons parler en profondeur du sexe mais nous allons donner surtout côté éducatif Nous allons nag dama Salam di téléspectateur Carapide man Jacques Keita laa tudd leader groupe euh, Takeifa. Mhm. Euh, groupe bi nag six musiciens ñoo ci nekk. man Jacques euh, guitare basse Mama Keita batterie Cheikh Fa Ibrahima Keita. guitare solo Cheikh Keita chœur et rap Fallou Keita et au Waraba. Mhm. waaw salaamaaleykum bon man Mister laa tudd quoi. Mhm. artiste chanteur. waaw di rafetlu émission bi quoi. waaw la parole aux jeunes waaw man maa ngi tudd Warabala euh, Waraba laa tudd. Mhm. nekk percussionniste euh, ci groupe Jacques Takaifa. Mhm. maa rafetlu vraiment émission bi quoi. yalla. Yeah. yàlla. <laughs> alaykoum, man c'est Birane je mhm. suis un acteur euh, culturel et mangi big up donc déjà aussi savoir trop. si a mm-hmm. participer par rapport à cette émission mm-hmm. euh, voilà nous allons parler de sexe Warnako, au début ah. de mes propos <laughs> ma première question moi est-ce que par exemple sexe tey suñ ko catégorisée, est-ce que le sexe a un milieu. Bon, man, d'abord, par rapport déjà au titre, au lieu de dire sexe, je vais parler de sexualité. Quoi. Sexualité. Voilà, donc je vais généraliser parce que Déjà, c'est un thème qu'on a trouvé ici, donc avant notre naissance, à notre naissance jusqu'à maintenant. Et que aussi, les pommiers dépendre de Nidi. Mhm. Donc, bonne façon, l'un qui définirait quoi, l'un qui Donc, déjà, c'est un thème que nous, nous, nous, nañ ci et aussi YouTube ci bëri tamit am mhm. parce que déjà ku ci nekk qui mhm. ça dépend de nous mu en fait donc voilà ma vision large par rapport à ça. par rapport à ça sa vision yao par exemple quand je pose le plus souvent quand je demande Jeune aux est-ce que vous avez déjà eu des rapports sexuels C'est la question, c'est mon impression. Euh, si je te posais cette question, est-ce que tu as déjà eu un rapport sexuel ah, Non, pourquoi jamais eu parce que, parce que je suis encore jeune, quoi. Uh-huh. Et pour moi, j'en ai pas encore besoin. vous pensez que jeune a le droit à sexualité, a le droit Ah, mais je connais que je sentir, je Uh-huh. yaa ku nekk ak sa personnalité. Uh-huh. mais yaakaar naa ne ku nekk libre nga def say choix après tu as tes responsabilités. artiste nga. ça fait très longtemps yaa ngi ci métier bi. tentation yi nit ñi xam nañ ko. waaw. Uh-huh. des fois nga dóor show wàcc benn xale bu nice ñëw ne la mais kenn <laughs> mooy loolu je t'aime xam nga dugg ci ay affaire non mais déjà mënuloo aimé nit. gis ko benn yoon rek amee ko pour man il faut ngeen a feneen jaar am ni ngeen am fi ngeen jaar ba mbëggeel boobu mën a am te dëggu uh-huh. ndax mbëggeel am na facette yu bari uh-huh. gis nit nii rek bëgg ko d'accord mbëggeel la mais ki nga war a mën taxaw dëggantaan ne kii je loolu uh-huh. pour man vraiment il faut ngeen ngeen am fa ngeen am ay jaar-jaar jaar-jaar nag mën na bañ a nekk ay at mën na nekk ay weer mën na nekk ay semaine mën na nekk ay heure seulement mën nekk ay minute tout à fait Tay yow ñu ngi di wax euh, sexualité parce que sama waji néna nañu wax sexualité de façon globale. ngeen nekké artiste ñu xamni ni ay tentation yu bari mo ci nek. yow lan nga ma ci mëna wax. bon en fait moy comme li Jacques wax rek quoi. damay mhm. damay revenir ci li Jacques wax rek quoi. parce mhm. que parce que ñun en fait ay artistes lañ quoi. Uh-huh. en fait boo sexe rek euh, ci milieu bi nit ñi dañ koy dañ koy graawal quoi. en fait ok mais graawul. tu penses que graawul. non dañ koy dañ koy dañ koy yóbbu fu sori quoi je pense que dafa graaw nag ci ñun. Uh-huh. Mm. je pense que dafa graaw ci ñun quoi. Uh-huh. instant bi ma nekk nii vraiment sama xel. léeg-léeg bon na ci nekk mais li ma gën a intéressé instant yi mooy sama carrière musicale te vraiment dama nekk ak suma grand frère ak suma euh, mag suma xarit sama lépp dama teg ci yoon boo xamante ni des fois doo am sax temps wu dana nga doxan parce que da lay woo non war a baa dañuy liggéey uh-huh. ni kuy liggéey nag des fois doo am temps boobu quoi te instant bi vraiment man li ma gën intéressé moy sama carrière musicale. man d'abord d'abord comme li gars yi wax rek peut-être damay lolu je vais le dire personnellement quoi. pour man garaawul. Mhm. sexe dafa nek lo xam te garaawul. tout à fait pourquoi c'est une réalité c'est une réalité donc mënul grave. Mhm. et à force de dire par exemple dafa graw luñu wara wax duñ ko wax. nuñ ko wara waxé duñ ko wax. Mhm. parce que déjà ñun peut-être à la différence de d'autres traditions mhm. donc ñun ñoo war a familiariser suñu bop, par rapport la sensibilisation ak éducation parce que comme on le dit quoi ñu ci bëri buñ koy def parce que ñenn ñi début bi tentation la woon xamuñu woon naka la moo leen ko Nous, ñenn ñi parce qu'il manquait d'information mhm. ñenn ñi parce que c'était purement par rapport à des préjugés moom moo tax ñu def ko nañu par exemple vous qui êtes euh, yéen ngi tout le temps sur scène vous avez vu comment les filles s'habillent le plus souvent kuy dem boîte du boîte, ak ki nga xam ne mu ngi këram war a waajal julli. ni ñuy solo mooy loolu. te des fois ni ñuy solo ça détermine un peu seen envie de vouloir aller vers quelque chose qui est le sexe ou la sexualité yéen da ngeen koy sentir. waaw ñun dëgg wax dëgg rek ah dinañ ko sentir dinañ ko yëg. Mhm. ndax euh, suñu liggéey mooy liggéey bi nga xamante ne dañoo xaw a jaxasoo ak loolu yëpp. Mhm. mais musiciens it ma fàttali leen am na si ñi nga xamante

talk ci micro bi xool comportement nga am envie ne et eh, les gars aujourd'hui on va parler de sexe par exemple euh, non, moi, sincèrement, mon musuma arrivé. Mais, est-ce que ça te tente Mais ça me tente. Moi, je suis assez ouvert d'esprit pour mon de sexualité. Uh-huh. Mais comme je viens d'arriver comme ça, mon thème, tout ça, donc je me suis pas bien préparé, tout ça. Uh-huh. Donc c'est important. Les parents ont un blocage extraordinaire. Ouais. Euh, et je pense que tu es l'eau répercuté chez nous. Si par exemple, on a des par exemple suñu fait face à une personne étrangère nous mëna wax yenn débat si on fait face à un public nous mëna wax yenn bon étiquette religion comme nous ko waxé mais bon il a parlé d'une certaine réalité le sexe c'est la vie la vie c'est le sexe donc on en parle on doit en parler impérativement pour moi on doit en parler impérativement mhm. on a une bonne éducation vraiment on est vraiment réputé de cette bonne éducation qu'on a eu mais quand même il a yenn yi. a yenn mm. génération lire parce que sexualité moo ëpp importance sax politique mooy jaay ah uh-huh. xale bu góor bi def na lii sëriñ bi def na lii jàpp nañ kii mu def lii ci benn néeg tu vois violé nañu benn xale ba mu cinq ans bon du n'importe quoi donc loolu c'est sexualité la. Mm. donc ci éducation aussi il faut que dès maintenant que nous commencé aussi di ko wax. Mm-hmm. mais it dafa am foo xam te dañ ko war a am fo xam aussi mi ngi yàq. tout à fait tey xoolal man doo seetaan télé les séries télévisées là. Mm-hmm. mais séries télévisées yi dañuy fournante sexualité la kese. kese da ngay toog sa papa sa yaay sa rakk say mag xale bu door juddu. te pourtant parents yi disent rien te pourtant kenn du wax. kenn du wax mais soo dugaloon gel ci kër gi diine fii eh. kërëng kërëng dañuy julli dañuy kurung kurung loolu pourquoi mënuñ ci jóg wax ci. tout à fait te kenn du wax. Uh-huh. donc fi ñu toll nii dafa am loo xam te dañ ko laaj yàq ak lo xam dañ ko fësal. wax ji du question de question de diine man jullit la non. fi ay jullit fi nek ay chrétiens ay juif ak lepp mais on doit parler de question de valeur ak ak éducation pour les avenirs pour les pour les pour les pour les euh, pour les euh, pour les générations futures. Uh-huh. c'est dans ce sens là qu'il faut voir mais pas généraliser le truc jullit nañu parce que tay di nga gis ne ko xam tane machallah uh-huh. day am lepp lo xam do ko dang koy sax bëgg ñëw tàlla soo mu ñaan. alors que mo gëna a yées alors que mo gëna a yees dégg nga waa ji wax bu baax a baax. danga ci dafa am lo ci bëgg yok bon en fait bon man c'est que dafa mës a ci ben ben ben affaire bu ma bu ma bëgg expliquer quoi. vas-y euh, ci ben dama tomber ni ci ben scène quoi Ben, xalé bu jigen mhm. juste ñuy wane à la télé je veux pas faire de pub. Ah. Euh, euh ñuy publicité préservatif quoi. ok. Euh, xalé bu jigen bi elle a plus de dix neuf ans. Mhm. mais xamul li ñuy publicité lan la. waaw xamul ni préservatif la xamul ni. xamul xamul xamul utilité bi quoi. ok léegi affaire bi daf ma problème quoi man. Mhm. bon sama travail quoi xam Ok. ok benn instant je me suis dit xale bu jigéen bu dem ba 19 ans 19 ans xamul. Euh, préservatif mooy préservatif quoi. Mhm. moo tax euh, je pense que war nañ gën a sensibiliser tamit nit ñi. ok ci côté boobu quoi. Mhm. mooy li jago wax sànq quoi ñu sensibiliser. éducation yi parents yi wax ak seeni doom parce que uh-huh. en fait boo nee boo boo le mot sexe rek. ñu bëri dañ naan i qui lu muy wax chaque jour gars ma tu vois. Uh-huh. effectivement dañ ci tout à fait effectivement dañ ci wax nit ñi xam quoi. Mm-hmm. Mm-hmm. je trouve que c'est pas un gros mot quoi. si le sexe c'est pas un gros mot sama waji dafa am ci bëgg bah, man ci li wax parce uh-huh. que euh, ñun bo xolé rek ya légui ci uh-huh. man tok di mm-hmm. ak sama tata mais bu ñu de bon. seen de fóonante ak yooyu. Mhm. mais ci saa si sama tata xoolal day fay tere jug leen. waaw dugg leen ci biir man man journaliste même pas autant. mais da gis léegi dañuy teg film yi yu bëri booy toog aisément. def mhm. di xool seetaan. Mhm. man du coup moo tax ma ne euh, war nañ xolaat tamit ci kër yi quoi yar yi. yar yi. parce que tamit euh, doom boo ko amee koy yar. Mhm. ci diiné comme ñun ay musulman la yekk ci diiné mhm. yekk ci yar boo vraiment bu gisee yenn yi. Mhm. da ci mëna a quoi. xam euh, légui non pour ñu pour ñu clôturer c'est-à-dire c'est la dernière question on sait que problème yi na problème yi bari na est-ce qu'il y a une solution vous proposez quoi comme solution vous êtes des artistes tay lan une solution le sexe on doit en parler dans l'espace public on doit communiquer avec les jeunes on doit leur faire comprendre. Quelle est la solution Bon, pour moi, la solution, c'est une prise de conscience, quoi que déjà l'ensemble de, réalités voilà, voilà, donc l'ensemble vraiment des individus de cette société mhm. prennent conscience de ce sujet. C'est pas tabou hein, mhm. parce que du moment où ça fait partie de la réalité, ça ne devient plus tabou. Et que aussi sans par exemple pour deugal les gars aussi, on parlait de nos parents, mhm. mais aussi nous frères et d'un am am l'ensemble des, des, individus qui constituent aussi la famille d'un ci Parce que peut-être par chance amna lo xamté mëno ko sa papa wala wala sa yaye mais xoox ak sa frère. nga xoox ak sa sister. donc ñoo ñëpp tamit bu fekkee ñoom déjà dañuy am benn hauteur ben capacité de dépassement. Mhm. ñom seen bop ñom ñoo mëna influencer seen rak yi pour ñu bañ ko jëlé comme lu tabou parce que aussi ku ko xamul laal ko mu gaañ la tamit kooku xamul quoi. mais à force que ñu ci waxtaan sensibiliser ñun suñu biir. Mhm. mais daf ko vraiment ben sujet intellectuel quoi. parce que intellectuellement parlant donc ça peut se discuter ça peut se parler. mën nañ ci waxtaan quoi ku ci nekk faram gelam. li ngeen wara def fi ngeen wara yam mhm. donc au fur et à mesure muy demee noonu dina jàll quoi. le sexe un sujet intellectuel mu nekk un débat bi nga xam ne dañ ko war a pour mieux apprendre les jeunes ce mot de la fin c'est quoi. ce mot de la fin moi euh, que li nga war uh-huh. donc euh, fait finir nga maintenir vraiment jeune yi ndaw yi dañ fay mm-hmm. même petit ci pour mon war mon vraiment di di et jeune euh, sexualité. pour man uh-huh. lu am solo tenait wartul sujet tabou quoi. ok. Uh-huh. sa mot de la fin. waaw bon mooy mooy li gars yi wax rek quoi. ok waaw communication bi. waaw hmm. gars yi gën a xam ka uh-huh. gars yi gën a xam quoi. ok yow. waaw mooy li may wax rek ñu gën a yeesal euh, xel yi. gën a yar euh, xale yi surtout nag mu ci biir kër yi. Mm-hmm. man fa laay gën a insister xale yi na ci kër yi na leen gën a yar daal. Mm-hmm. nga xamante ne ni bu ñu def lu bon sax. Mhm. voilà donc c'était votre émission la parole aux jeunes je pense que vous allez aimer et je pense que vous avez compris le message le sexe doit être un sujet qui doit être débattu un sujet intellectuel on vous donne rendez-vous semaine prochaine dans une autre émission ciao.